borom bee la fay nga neelam ya tey ma jóg saddi way way laa yiley mbóot yu foor yiley xabbi nuur fa bali yàlla buur jox laa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan GMT TV ñu ngi leen di nuyu baax di yëkkatee suñu kàddu fii ci jumaay Tuuba ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mbooloom Serigne Touba mi ko daan def ñoo ko defati muy daayiratu ilhamu latiful kabir doon benn banqaas ci daayira muxadamatul xidma nekk fa fële ci Touba Ngor ci waajtaayu weeru tedd wi ñu jublu muy shahru ramadanul mubarak ci teewaayu Serigne bu Bousso mi nga xam ne mooy jiitul daayira muxadamatul xidma ak ndaw yi nga xam ne ñoom la waa daayiratu ilhamu latiful kabir yabal Serigne Jibril Fall mi ngi ñuy taxaw Serigne Abdou Pouy mooy Abdou Pouy mi nga xam ne mooy njiit li moom itam ñu ngi ni taxaw ñu indi liggéey bu rëy bii nga xam ne moo daan naka jekk moo daan jiitu si ci koor gi ñoom nag taxawaay yi nga xam ne daayira bi daana ko taxaw ci liggéey yu mën a doon yi leen sëriñ bi sant moo xam ci koor la moo xam ci màggal tuuba la moo xam ci gàmm la moo xam lu mën a doon ku ñëw fekk fi seen taxawaay ak juma itam taxawaay yi nga xam ne moom la ñuy def ci jumaa ji ci setal geek taaral geek toppatoo gi wax dëgg yàlla ku ñëw gis seen taxawaay taxawaay yooyu rek lañu am muy takk seen ndigg fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci barab bu tedd bii nga xam ne mooy jumaay Touba lii nag di bisaab bu bari boo xam ne ni ñu ko defee woon daaw defee ko daaw jeeg defee ko ren ren li jamonoy xat-xat ak fi jamono toll ci wàllu uh, mbas moom nga xam ne moo xew ci réew mi taxut itam ñu teggi seen tànk indi uh, nañ ko mu toll ci ñeen fukk ak juróom-benn ci ay saakooy bisaab loolu di liggéey bu rëy boo xam ne uh, jëlale naa xëy na jumaa ji sax waaye ñu baree bare ma wax dëgg yàlla mën nañ cee xewlu ba weer wi jeex te du kii te ku nekk xam na ne ren bisaab ni mu daan nangoo sax nangowu ko waaye liggéey Sëñ Tuubaa ni ñu ko xamee rek amul tànki ginnaaw tànki kanam la am loolu lii firnde la ci kon duñ def lu dul jël kàddu gi jëbbal ko sëñ Jibril Fall ci ci ci turu Ilhamu Latiful Xabir bu ko defee mu jébbale liggéey bi ñu jox sëñ Afee mu euh, ñaanal leen ñu yewee ko ba beneen yoon sëñ bi bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen ndokkeel di leen sant bu baax a baax di rafetlu bu baax jotaay bi di kilifa jotaay bi di sëriñ bu Bousso di sant bu baax ci teew gi nga xam ne daayira Ilhamu Latiful Xabir ci njiital sëriñ Abdou Pouy ñu teew fii ñuy andi liggéey bi nga xam ne ñu ko daan faral di defee at mu jot bés bu ñuy waajal koor gi li nga xam ne moom lañ doon dajale ci bisaab lépp fas yéene ko andi fii balaa koor gee yegg si ñu andi ko kon tey jii loolu lañ leen indiloon fii ci jumaa ji muy loo xam ne niñ ko wax dëgg yàlla niñ ko faral di ànd ak muqaddimatul xidma ci liggéey bi bëgguñu mukk dara di ci dellu gannaaw ci li nga xam ne moom lañu ànd ndax seere nañ ne day jëmm Sëriñ Tuubaa rek rek rek moo tax ñu ànd ak yéen ba ñu ànd ak yéen ba léegi doxalin wu weesu doxalin Sëriñ tuwaa boo xam ne fu ñuy dem moom la ñuy wër moom lañuy gis ci ci ànd bi bu ko defee kilifa gi Sëriñ Afi Buso ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax te taxawaayam yàgg ndax mbooloo mi di Muxaddamatul Xidma de téye gi mu ko téye ak jàpp gi mu ko jàpp ak doxalin bi mu koy doxalin ku nekk ci àdduna bi yëpp gis nga ko rafetlu nga ko bu baax a baax a baax ñun nag waa Touba Ngoye waa daayira Ilhamul Latiful Khabir bu Touba Ngoye ñun moom jàpp nañ ne suñu affaire suñu suñu affaire la ndax suñu péete la jàpp ñu ci lu bëree bëree bare bëri kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ñaanal itam ñi nga xam ne ñëpp boole mi nga xam ne ñëpp moom lay àndal ci liggéey bii waaw bu ko defee ñu ñaanal suñu kilifa gu mag gi nga xam ne moo nekk fii ci Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha moom itam taxawaayam bu rafet boo xamee ne taal bi yëpp rafet la nañ ko ñu koy ñaanal moom it mu yàgg ci kanam mbooloo mi kon bu ko defee kàddu yi waaw di sant waa Touba Ngoy bu baax a baax a baax daayira Ilham Latiful Xabir ak képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Touba liggéey bi gis nañ ko yegg si na coono yi ngeen ci doon daj yëpp di dajale ba bañ tàmbalee nawet bi ba muy génnee rek ba fi ñu toll nii lépp di dajale ngir waajal bés bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw di jaajëfal itam suñu jëwrin sëriñ Assane Yadd moom xëj na yàlla dafa dogal ak jamono ji ni mu xatee waaye ku ne xam na ne liggéey bi moo ko doon taxaw lépp mu mu féete ko waaye moom itam xelam mi ngi fii kon ñu ngi koy ñaanal moom itam bu baax a baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci kanam mbooloo mi ànd ko jëwrin sëriñ Abdou Pouy kon mbooloo daayir Ilham Latiful Xabir yéen ñëpp itam fu ci waaye mën nekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a ñaax ñu gën a laxasu bu baax a baax ndax liggéeyu Sëriñ Tuubaa musu du mës a fii lañ doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa wala liggéeyu Sëriñ Tuubaa dellu na gannaaw du mës a am kon saa su nekk suñu xëyee fu ñu nekk rek nañuy gën a laxas suñuy xol gën koo rafetaal gën jëmaat ci Sëriñ Tuubaa liggéeyu Sëriñ Tuubaa bu baax a baax kon ñu ngi jéglu bu baax a baax kaddu yi nag ñu ngi ko doon yëkkati ci turu jëwrin Sëriñ Abdou Pouy mii teew kon ñu ngi leen di tubal bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ni mu ko waxee rek képp koo xam ne daal jëfoon nga ci ca Tuubaa Ngoy ak noo ci jëfee da nga xam ne liggéey bi agsi na tege na ci loxoy sëriñ bi Euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm euh, di xam la itam nag lii ñoom itam naka jekk niñ ko defee njël njëlbeen gi rek muy bisaab bii waaye saa yu ma saan dem ba ci biir koor geet liggéey bépp ñoo koy ànd ak ñun lépp ñu amee danañ ko ci def lépp lu ngeen leen jox it na ngeen xam ne agsi na ci barab bi loolu moom ñu ngi koy seede bu baax kon duñ def lu jël kàddu yi jébbal sëriñ Afe mu sànni ci ay kàddu te ñaanal leen ci tuuru daayira Muxaddamatul Xidma waaw kàddu yi xanaa du bari ko waxee rek asalaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp ñu ak sëñ Jibril ak sëñ Asan ak mboolem membre yi daayira bi ci suñ turu bopp ak turu Cheikh Mouhamed Mountakha yoon wi ak mboolem turu daal suñu xam ne xam ñoon seqal di dal di yeesal suñu rek ñu ko baaxoo defee ci ànd bu rafet bi nga xam yàlla dogaloon nu ko di sëriñ Tuubaa ki tax te bañ ànd ak léegi yaakaar naa di ci woon dara wala genn xewet wala benn doyar yi wala genn moto xam ne gis nañ ko ci ànd ànd ak xam naa moom mooy koo xam ne moom tur bi rek matal la kon ñu ngi delatu yeex suñu bu baax ndax lii déenul gan lu lu fekk si ay moroom rek la kon cant gi dem dañ koy sof ci cant gi daan cant ay moroom rek ndax bépp liggéey boo xam ne daayira bi mas na taxaw na ci rek kenn mu caa man du lenn nag du jëf ci doole du jëf ci poos du jëf ci ñaq muy koor gi ni ko Ablaye waxee léegi muy màggal gi muy meneen xew-xew yëpp muy rawatina gàmm ak lu mën di doon rek sëñ ja feeñ ci añ ko añ goo xam ne ku ne xam ne ne yéen euh, la waajo waxoon yéen ngi lii ci bàmba gi moom kenn waaye yéen moom ngi lii ci bàmba gi kon dal bu baax di sant rek ndax lii du caagee nag moom ngeen def ci koor gi ni ko euh, Abdoulaye waxee léegi lii day daan jiitu ci koor gi waaye su ma sañoon tamit seen doolee nga ca seen alal nga ca lu baree baree bari dañ ko def ci koor gi ci biir liggéey ci biir loola kon sëriñ bi gis na ko li tax ngeen di ko def gis na ko ñaan kon mu suñu borom ci barke Sëriñ Tuubaa mu yàggal liñ kanam njaboot gi lool te barkeel njaboot gi te nangu jëf yi képp ku ci jëf lu mu tur tur rek jamono ni mu xatee ak fi mu toll ku ne xam na ko ku ne xam ne ne lu waay def lu ne rek ko def waaye du ak ak man du ak jot ndax réew mi xat na lool te te te te lu lu lu lool rek def xam ne lii ñor leen bu baax a baax kon ku li ci waaye def rek ak nu ma di toll nga xam ne sëriñ bi gis la daa doole xeet li bu baax indi jafe-jafe yi te indi fi ak jàppandi koo xam ne du ko ànd jafe mukk ak ñu ngi ñaanal ñëpp nag di teg nuyoo bi sëñ eh, bi ci sa loxo nga jot ko mboolem membre yi daayira kenn ku nekk ñoom ñu xam ne jëfam agsi na muy lii ak la ko jiitu woon ak danga soobu dem ba peeyum ngërëm nga génnaale ndam ndam laa هديت الهدى نبيت القلا أقمت الصلاة ليلا هديت الهدى نبيت الغلا أقمت الصلاة ليلا